loolu nag euh, boo ko fàttalikoo bi Mimi Touré génnee euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ca pencum ndaw réew ma dafa génn quelque temps après ñu ne rapport IGE épinglé woon na mi Touré euh, la question que je veux poser ci jamono yooyu noonu mooy lan moo tax képp ku génn mouvance présidentielle mu am après une institution boo xamante ni daf lay topp ci lu jëm ci wàllum luubal pourquoi au moment même ñu nekk ci biir li nga xam ne mooy la mouvance présidentielle du ñu xool nakal len nit ki di yoré li nga xam ne moom mooy moomeelu donc ça c'est important ben deuxièmement dafa am lo xamantene euh, wax nañ ko ci liñu ci liñu jox jotta a joxe ci ay information euh, koppar yi ñu wax né luubal na nako wala fi ñu maanaam niñ ko xajé ci bir xaalis bi nga xamantene wax nañ ko bari na ñu né dafa am ñaari match amiko yo xamantene Sénégal joué nako ko muy dem coupe du monde euh, mu dépassé ci wala mu dépensé ci 2 milliards de francs CFA ma bëggoon wax ne ñaari match yooyu bo leen ko fàttali ko Aliou Cissé mom ci boppam le coach de l'équipe nationale du Sénégal dafa bëggoon jouer trois matchs amicaux avant ñuy dem coupe du monde Qatar 2022 Augustin Senghor mom mo génn mu ne euh, mënuñu am trois matchs amicaux parce que match amicaux yi dafay cher ben ñu fàttali Sénégal dafa jouer ak Bolivie euh, l'autre équipe sama ko maa xam peut-être naa ko fàttaliku ci biir match bi Aliou euh, Augustin Senghor mo expliquer que ne de ben ñom ñoy fay les billets d'avion des équipes ñom ñoy def li nga xam ne prise en charge bi té lu jëm ci walum prime de paiement jour yooyu ñoom ñoo def parce que c'est des matchs amis ko yo ne l'équipe nationale du Sénégal mom moko demander demandé à travers ces équipes là ñaar France lañu jouer joué match yi dañuy fay les stades bi nga xam mom moom doon donc tout ça c'est des dépenses je ne je ne défends pas encore une fois euh, Yankhoba Diattara c' juste des euh, madame des analyses yo xam dañ koy joxe at compte tenu de loolu yépp xaliss bobu yépp ñu gis ñu ñëw ñu né 2 milliards de francs CFA bon xam nga Sénégal tamit dafa am loo xamante ne gën nañ ko fii maanaam chiffre dafa bëri lu ñuy nax euh, je pense que nag euh, c'est le moment encore une fois pour ñu ñëw comme yaa ngi wax ne temps bi jeex na pour ñu ñëw justement pour mën a leeral lu ni mel as xalalu alalu askan wi la l'argent du football doit aller où dans le football euh, parce que loolu moo tax ñu ñu jël ko donc ñu fàttali avant ñu dem ci coupe du monde bi coupe d'Afrique la ñu jógee avec xaalis bi ñu fa jëlee yëpp ñu indi ko ci coupe du monde bi donc l'argent du football doit rester dans le monde du football

dossier mom nak dina signer sous réserve parce que dina ne ah jox nañ ma dossier passation bi mais faw ma saytu dañ ma jox nak baax wala baxul ndax amna lu ci manqué wala amna na lu ci yokku euh, c'est un peu dans l'administration normale donté nak meun nañ ci suppo euh, xalaat ay mbirum politique je ne le pense pas politique parce que dañu rapport du cours des comptes la euh, politique aussi Nous euh, le opération bu mondial dañu dem ba nous ay mondial ñu am budget mettre à la disposition de ci dépenses yi bu ñu Sénégal suñu togué de quart de finale vous n'y avez vous n'y avez par exemple quoi vous n'y avez par exemple 100 francs 100 francs et mon gars dépense au tu campagne bi campagne bi bon gagner mon quart de finale demi finale finale madame de fond n'y a match des années n'y match alors tu sens y a une grande 6 matchs yep les gagnants de match sur la def toc 100 il n'y a pas de ron faut qu'il dorme avec du ron 90 francs et germain il te reste 10 francs

mus ñu bokk ci mais Dubaï euh, kii Qatar Sénégal am na benn moment boo xamante ni bii waaye comme comme comme kuy dem marché njóobeen taay bàyyi gel yeeg cumbur sec njobo njobo yeeg ceeb su sew sec comme si gayen Dubaï booy est-ce que xam nga paas paasu Dubaï laaj ma moom yi dem pays golfe yi paasu Dubaï du du muy franc du deux mille ah. mhm. hôtelu Dubaï euh, Qatar du ay du ay hôtelu euh, soixante quinze mille nekk Sénégal ah mhm. foofu foofu dund VIP la bàyyi. surtout ci jamono boo xamante ni bi organisation mondial la. lépp dafa cher ba am ñoo xamante ni bi sax dañu génnoon Qatar dem dëkk feneen parce que réew ba dafa tuuti. ça coûte cher mais euh, ceeb bu sew bu jóg na yóbbu di yànq ba li mu yóbbu di mu yóbbu Qatar bari na de. yooyu nag il faut ñu waa ah influenceur waaw. ñëpp a demoon influenceur waaw. waaw mais baaxul. rapidement baaxul. am organisation té bo xolé sax amna ci ñi nga xamné ne nañ ci 12e gaynde bi ño xamantene ni nii dañoo bokkoon ci e gaynde té ñu ëpp ñu donc ils ont préféré plus jëli ñoo xamantene ay influenceurs mais aussi tamit ci ben instant bo xolé Sénégal mo tolloon fofu parce que Sénégal jóge na ci Coupe d'Afrique gagné ko et ñom xëy peut-être le but bi nga xamné mom lañ ci doon seet moy communication bi gëna gëna gëna gëna dox parce que aussi tamit influenceurs yo quoi que bon

da fekk koo xamante ni am na am na talent parce que day saaga nga ne influenceur loolu mooy influenceur falsifier noo bi. merci ku jóg yóbbu la ba ba ministre ba ñu saaga la nga jël ki lay saaga soxal ko sexal ko sexal ko bang bang loolu mooy influenceur ba kenn. day na waay. influenceur influenceur. <laughs> ah ñoom nee nañ ngeen bàyyi leen de. bu ñu bu ngeen li leen di dal jamono gi dafa bëri. ñoom si ñoom influenceurs yi. influenceurs ñoom yi. mënoo mënoo taxaw ci kanamu télé influenceur comme ñun xana ko ñu tok fi di wax di n'importe quoi comme moñu gëna nek influenceur xana ko ñu tok di wax n'importe quoi mm-hmm. influenceur day fekk nga correct nité wax na jox na la exemple sank mm-hmm. Fatou Aïdara mm-hmm. influenceur la mi ngi gagné ay marché am Faye Dara ñaaw la même chose ñaaw da ngay dé ci manifestation mu tak ay motos ba fess del nga xamni li mu gagné marché dafa dem jënd ay kay pour liggéey mais yow sa téléphone taxaw cinq minutes ba doyal ñu lay wax influenceur

rubrique le mot de l'économie inchallah tey euh, eh, eh, la Bob Marley Bob des na suba moo tax ma xaw a hésité waaw kon yàlla defal ñu dalal jàmm la si dem ci 96 point 1 gaa yi nga lay seetaan de ñaata war naa lijjanti itam yow tam ñaata message ngay jot par jour la léegi naa la caala am na ah, démb bi ma démb am na ku ma la laaj mu ne ma mais yéen ki mooy présenté ma ne ko waa moom la sama kii la sama boos la ñooy ñooy ñooy denn mu ne ma mais Cheikh ne ko waa amul la yem sax. demande d'explication la rek dama tontu ba sama ba demal incha allah ba demal incha allah. justement dire que rapport Cour des comptes bu euh, épinglé euh, ministère de la santé entre autres. bii mhm. épinglez euh, épinglé ministère des sports mhm. il est temps que nous leeral.